docteur Mamadou El Hadji Ly ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. yow économiste nga nga nekk coordonnateur cadre républicain yu la Assainies responsable alliance pour la république nga. Euh, dañuy mm. dooree li nga xam ni moo jëm ci waxtaan bi gis nañ ni. Euh, ki nga xam ni moom moo di Maimouna Ndour Faye sunu naataango taskatu xabaar euh, nekk itam njiital 7TV télévision privée la Euh, gis nañ euh, li nga xam ni itam moom moo ji euh, acte bi nga xam ni agression bi nga xam ni teg nañ ko ci kawam plus de peur que de mal alhamdulilah mais yow lan mooy sa réaction bu njëkk en tant que acteur politique. sama réaction d'abord en tant que sénégalais mooy que lii nii dañ koy ñaawlu dañ koy ñaawlu fu ñaawlu yem ndax may Maimouna ñun xame nañ ko ràññee nañ ko xam nañ jaar-jaaram ci journalisme. ci tasakatu xabaar xam nañ ko donc fi mu jaar yëpp xam nañ ko ba mu agsi fii ba di créer entreprise am di ci jël ay sénégalais di ci liggéey te mu doon encore jigéen donc li ñu ko teg franchement man en tant que sénégalais d'abord waxuma la sax politique dama koy ñaawlu kon ndam ne ko fermement te nag di wax nag état na ci dem ba mu jeex takk na def enquête yi ba ñu xam ne ñu ko def ñu def ñaawte fii nañ leen daan daan yi nga xamante ne yu méngoo ak li ñu def au moment où ñi ñi ñu ngi wax jàmm nañu dem ci dialogue ah di def lii. président de la république Macky Sall ci beneen fànn gis nañ ci xarale bu yees bi bu ñu réseau social X waxaat na itam intention ngir euh, jóge ca bopp réew mi ginnaaw bu fonction am jeexee ñaari fan ci weeru avril lan mooy sa xalaat ci wàll wi ni mel. waaw sama xalaat mooy que président dafa nekk euh, li tubaab bi di dafa am nekk cohérence ci position am yu mu jël depuis euh, mun naa ne depuis ay quelques weer ginnaaw ci ginnaaw jël na wax ne que moom bokkutu bokkutul ci élection yi du dem élection parce que dafa loolu lu tax mu jël décision boobu te war te te mënoon na ko def mënoon na ne candidat la waaw mais dafa jàngat situation politique Sénégal ak euh, euh, violence yi am depuis mars après amant juin non non man du ma dem pour pacifier kii bi donc loolu mosu si jógee wax na ko donc waxaat na ko encore keroog parce que gars yi dañu ne à chaque fois parce que opposition bi amuñu benn discours bu président dafa bëgg toog ci nguur gi dafa bëgg continuer ci nguur gi donc loolu moo aussi mu ñëwaat euh, tollantiwaat ko pour ne leen man le deux la sama mandat jeex sama contrat de sama pacte ak ak sénégalais yi day le deux lay jeex man la deux laay dem donc dinaa woote ndaje waxtaan ci ndaje boobu ci ñaari point la ñuy waxtaan kañ la ñuy jàpp date pour élection yi ak à partir de deux nag la ñu war a doxale loolu moo tax mu woote woon ndaje bi dialogue bi am na ñu si dem am na ñu nga xamante ne bu ñu nee dem ñu si donc loolu pour pour vous diir que président Macky Sall loolu mu wax noonu lu mu pour c'est pour rek gën a firndeel sénégalais yi li ma waxoon ba léegi ci laa ne man sama mandat la de lay jeex te bu jeexee may dem sama yoon. Euh, ba tey gis nañ ne Sidiki Kaba ci ab point de presse bi nga xam ni amaloon na ko wax na ci nag ay fànn yu bari. Euh, ci li nga xam ni war na mën a am wala scénario yi war a am ñaari fan ci weeru avril euh, buñ ci tolloo wala buñ ci yeesoo itam buñ ko weesoo situation yu bari nag expliqué na ko nee na soit conseil constitutionnel Euh, décidé ni que ni président de la république dafay continuer di diriger dëkk bi ñaari fan ci weeru avril ba ginnaaw rek installation ki nga xam ni itam moo ko fi nar wutu euh, bu nu sukkandikoo ci article bi nga xam ni daal la koy fësal article 36 alinéa 2 wala sax ñi nga xam ne ñoom ñoo di juróom-ñaari sages yi itam décidé ni euh, dafay jóge ci bopp réew mi ñaari fan ci weeru avril hypothèse boobu lan moo ci sa xalaat waaw xam nga li nga li nga wax c'est vrai que bu mandat bi bu jeexee normalement dafa waroon ki koy wuutu wala nu ñëw mu jëbal ko leng yi mais li mu la wax ni dafa am benn situation bu spéciale bu xew Sénégal mooy que élection yi ñu waroon yi ñu waroon tenir le vingt cinq février élection yooyu amatul te am nañu yaakaar ne aussi après bi ñu déglu ñi ñi daje woon fii jam ñaajoo ci dialogue bi parce que ñoom jàpp nañ seen dat nee nañ ñoom proposé nañ le 2 juin donc ñu proposé le 2 juin c'est-à-dire donc kii wara wutu wuutu Macky Sall après le deux avril lay ñëw te nguur gi mu ñu toog Sénégal fekk am ñu njiit am ñu njiit constitution bi dafa waxoon nag njiit Sénégal bu demee ba am tolof tolof am jafe-jafe pour mun continuer liggéeyam président assemblée nationale moom la yoon may mu ñëw wut ko mu assurer ce qu'on Euh, kii euh, genre in genre intérim lay def mooy moom day ñëw jël nguur gi ci soixante jours ba quatre vingt dix jours mu organiser ay élection boobu si situation bi ñuy wax bu amoon euh, président bu amoon jaf tolof tolof def mais fii président amul tolof tolof président mandaam daa jeex donc li tubaab di wax vacance de pouvoir la ñu nar bu moytul moom lañ ñu naraam mooy dañuy toog du ñu am njiit. mais loolu kan moo ko créé léegi nag constitution bi ci article trente six bi nga wax alinéa deux dafa ne situation boobu bu posé wu bu président mandat am jeexe te ki koy wuut ñëwagul yoon bi may na ko mu dawal ba ki koy wut ñëw mu jox ko lenge yi donc man je pense que la solution la moins problématique te bi nga xamante ne moo gën a yenu maana tax tax ndax c'est confiné dans la constitution bon xam naa nag léegi nag ñun suñu suñu avenir mu ci loxo conseil constitutionnel. waaw ah, kon man loolu laa da nga jàpp ni li conseil war a dogal ëllëg ñëpp dañoo war a tënku ci loolu. mais bien sur actuellement <laughs> conseil euh, bon xam c'est les républicains qui sont là c'est des sages c'est des patriotes ils vont dire le droit donc dans ce cas de figure il y a que euh, l'article 36 euh, alinéa qui peut s'appliquer donc ci loolu laa am loolu mooy sama xalaat. d' accord mais gis nga ni itam li nga xam ni moo jëm ci coow li fan yi yëpp ci langum politique bi euh, ci seen boor euh, coalition Benno Bokk Yaakaar daanaka dynamique bu mu amoon est ce que amul li nga xam ni daf ci deñ maanaam jiboo beeg euh, bokkoon jëmukaay bi est ce que loolu amul lu ci wàññeeku ginnaaw bañ ne Amadou Ba mooy candidat bi ba tey coalition Benno Bokk Yaakaar. no am am ñu problème boobu coalition Benno Bokk Yaakaar musul am problème ci candidature Amadou Ba. ñoom ñëpp def nañu seen ñoom sax ñoo njëkk def seen congrès pour jëmmal décision président de la république ci choix am ci Amadou Ba ñoom musuñu ci changer musuñu ci varier ñoom ñu ngi ànd ak Amadou Amadou mooy seen candidat problème bi kay ñu ci suñu njaboot la xaw am tuuti ça aussi il faut le reconnaître il faut ñu wax ko mooy ko waa APR am ci ay quelques personnes ñi nga xamante ne ñoo fi bëgg a euh, def li nga xamante ne peut-être ñun bokkul ak suñu gëm-gëm bokkul aussi ak suñu doxalin parti parce que parti bi dafa am foofu nekk da nga am discipline si le président mooy njiitu parti bi moom moo wax président moo wax ñëpp dégg Amadou Ba mooy sama candidat mooy sama candidat képp sax la wax yokk yokku ko ci donc Amadou Ba boobu nga xamante ne moo nekk candidat Benno Bokk Yaakaar ñun moom la xam moom lañu ñu reconnaître moom la ñu gis bu ñeneen ñi nag pour des raisons ñun ñu ñu ñu xamagul ba léegi parce que gis nañ leen ñuy wax commencé di xañ ñi di yooyu mais ñooñu li ñu def noonu man je le condamne fermement. waa léegi naka ngay jàngatee ñi nekk ci gouvernement euh, nekk ay jëwriñ di attaquer seen candidat wax nga ko léegi léegi mais euh, président bi mi seetaan wala danga jàpp ni moom xam na wala dina siffler récréation bi mu jeex. xam nga euh, sëñ bi. président man fi man fi mu toll nii ci jamono gi ñu toll nii man dama ko xaw yërëm ci benn wàll parce que ñu ngi ci situation ñu ngi ci guuta bu metti bu tar dama jàpp ne ñun ñëpp dañoo waroon laxasaayu ànd ak moom jàppale ko pour ñu génn ci guuta boobu noonu. même buy metti Sénégal ci kii noonu. mais xaaruma woon ci ay ñooñam au moment où moom mu ngi préoccupé wu ci intérêt national Sénégal ñi ñi pour des inavouées que je ne connais pas encore des raisons euh, politiques politiciennes ñu toog fii di xarabante di attaquante donc je pense que dans les meilleurs jours dans les moments à venir que président dina jël toutes ses responsabilités pour mettre à terme à ces agissements là ça moom ñun loolu la ñuy xaar donc yenn affaires yi moom franchement président waru ko bàyyi muy continuer di prospérer parce que day day day day jiixi jaaxa ci suñu xel ci soxla yi sax APR am na fa euh, ci yenn ci responsable yi. non euh, loolu moom loolu lu ma la wax la ma ne la problème bi si suñuy njaboot gi la APR. Hmm. du ci benn bokk yaakaar donc APR la et puis comme ni mu la ko rek dans les jours à venir la le président va mettre terme à ça et le parti dans son entièreté va mettre terme à ces à ces agissements là. ñu ngi wax décrispation ci space public bi euh, gis nañu itam projet de loi. am amnistie bi nga xam ne adopté nañ ko d'ailleurs ci conseil des ministre bi du yàgg dara dina dem itam assemblée nationale mais lan mooy si sa position yow en tant que responsable de l'alliance pour la république waaw xam nga mooy li mu la wax rek tous tous toujours c'est dans la logique de d'apaiser l'espace politique dans la logique aussi d'aller vers une description descri, descrispation de la situation Parce que n'oubliez pas, le président de la République, face à cette situation, il avait fait appel à l'opposition. opposition dañ ko tegal ay conditions dañ ko ne ñun avant que ñuy toog ak yow di waxtaan ay wax dialogue ay wax na jàmm dellu si ngay njëkk tàmbale mooy ñuy nekk ci ci yoon ci loxo yoon na nga leen bàyyi président woo ministre am waxtaan ci ne ko képp ki nga xamante ne dafa am problème avec l'administration mooy avec avec avec l'État xool leen ci anam yi nga xamante ne méngul na yoon ngeen élargir leen ngeen bàyyi leen ak état la wax de waxuma ñi nga xamante ne am nañ problème des problèmes privés ak yooyu donc amnistie bi boo xoolee c'est les faits faits yi la ñuy ñu ka ñu encadré ko dans une période bien déterminée mooy yëngu-yëngu yu amoon mars deux mille vingt et un nga xamante ne jàppoon nañ leen ci dañ leen bàyyi jox leen liberté provisoire ñi nga xamante ne aussi ci yëngu-yëngu bi amoon juin deux mille vingt trois kazalik waaw ñooñu la affaire bi concerné. léegi opposition bi def na bloc déjà gis nañ leen front bi nga xam ni taxawal nañ ko ñoom dañu bëgg rek ñu respecter constitution bi ak li nga xam ne mooy calendrier électoral bi euh, front boobu yaatu na de. waaw yaatu na mais man am na fu ma leen doon xaaree parce que xam nga opposition bi léegi man dama dem ba commencé sax am euh, problème de compréhension ci seen doxalin. parce que léegi léeg ñun la waa président defal lii président def loolu ñu daw bàyyi ko foofu ñu ne ko non ñun waxuñu la woon lii parce que ñoom ñoo waxoon ne président na libéré na libéré prisonnier pour ñu mun participer ci dialogue bi président def na ko léegi pourquoi dem ñu dialogue donc à quelle opposition se fier parce que dama ne si jamono gi ñu toll nii nii nii nii war ñu nekk ci ay gën yokk xar mi kalaw. d'accord war ñu ko yokk parce que actuellement. situation bu posé wu Sénégal te am ci ñëpp gis sous région bi nu muy doxee par que dëmb dëmb rek gis nga euh, opposant bi ñu rey fee nu mu tudd sax Tchad ah, ak li xew Mali. d'accord li xew Burkina li xew Niger ak fii suñu wet Guinée. Hmm. mais ñun war ñu xam ne musiba ngi nii suñu wet. d'accord donc ñu ñëpp dañoo war a nekk ay sénégalais ñu xam ne ay sénégalais la ñu manko. Hmm. nekk benn. ñu sauver suñu bopp président Macky Sall ay ay quelques semaines moo ko fi dese. d'accord donc seen seen comportement bi toog fii nee na ñoom dañuy def front. pour gën a dugal c'est parce que parce que aussi il faut il faut que nga xam ñu xam benn affaire. oui pour terminer élection yi mënuñu mhm. am mënutul am fii ba le deux. d'accord mënul matériellement techniquement mënul ne. d'accord d'accord d'accord donc ñoom dañoo war a am raison ñëpp ñu ñëwaat toog ñu waxtaan en sénégalais man am naa yàtti nekk bu ñu toogee ku ci nekk ñëw wax. ñu wax en sénégalais dinañu am solution fekk dara du tour bal du tàkk dara du am ñu dem suñu élection choisir le meilleur président mu continuer liggéey bi mais moo gën li ñu ñuy def parce que gars yaa ngi fii nii suñu wet l'heure est grave il faut ñu xam loolu. jërëjëf docteur Mamadou El Hadj Ly. waaw kan di fàttali nii yow économiste nga yaay coordonnateur cadre républicain yu Parcelles Assainies responsable nga itam. alliance pour la république ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci nu nga nangoo tontu suñuy laaj. maa ngi leen di sant di gërëm auditeur réew mi FM ak fu ñu mënti nekk ci Sénégal. jërëjëf yal na yàlla def jàmm ci Sénégal. jërëjëf amiin salaam jàmm ci Sénégal. jërëjëf amiin salaam jàmm ci Sénégal.